naataal fukk ak ñeent bible bi xamaluñu lu bari ci ngoneeg Jésus nettali nañu ni Marie ak Joseph dañu rawale ji woon Jésus Égypte ngir bañ ñu rey ko ba ñu fa jógee ñu ñibbi Israël ci dëkk bu ñuy wax Nazares Jésus màgg ci tey ak yiw ci kàttanu yàlla Marie ak Joseph ànd nañu Jérusalem yóbbaale Jésus foofu Jésus riisoo na ak kilifa diine yeeg kilifa aada yu israel yi ci mbirum yàlla mu déglu leen am ay laaj yu mu leen laaj ba noppi tontu leen ci seeni laaj ñoomit kilifa yi nekkoon ci jotaay bi yépp daldi waaru ci xam-xamam bu yaatu bi ci mbirum yàlla bi mu amee fanweeri at la tàmbali xamle mbirum yàlla ci jotaay yi ñu bari gëm li muy wax xamle mu doxee fi siiw